حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله نبينا محمد ومن والاه اما بعد mbokki jullit yi noo ngi sant sunu boroom subhaanahu wa taala waaye noo ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne sunu boroom subhaanahu wa taala ci ak mën a tànnam ci xam-xamam bu xóot te yaatu ci la tànne ay yonent yónni leen ci bindeef yi ngir ñu mën a jottali kàddug sunu borom subhaanahu wa taala waaye itam ñu man mën a wan nit ñi yoon wi gën a jub yoon wi nga xam ne ku ca jaar danga amuk texe ëllëg yàlla yónni leen ngir ñu génne doomi aadama yi ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer loolu moo tax yonent yooyu képp koo xam ne ab jullit la am lum leen ameel lum war a xam bokk na ca mbooleem ñi yàlla sa borom subhaanahu wa taala yónni jullit bi daa war a gëm bataaxel ba ko ba leen yàlla joxoon képp ku yàlla ma sa yónni bataaxel ba ko sunu boroom yàlla joxoon mu jëme woon ko ci jaam ñi jullit bi daa war a gëm bataaxel boobee daa war a gëm itam li ñuy wax ak nubbuwaam ndax loolaa ko tax a doon yonent rawatina ñi nga xam ne dañ leen a yaxal ci alxuraanul karim ñu di ko jàng guddi di ko jàng bëccëg ci ñi nga xam ne ñi ngi jàng alxuraan ndax loolu ab ponk la ci ponki ngëm yàlla yi jaam bi du gëm mukk lu may nga xam ne daa gëm mbooleem yonante yi gëm ñii di bàyyi ñaa loola ak kéefar la loola weddi yonante yépp la suñu boroom ci alxuraan nee na ñi nga xam ne dañoo weddi yàllaa ki yonanteem di bëgg di teqale diggante yàllaak yonante yi di wax ne ñun day dañuy gëm ñenn mel na yahuud yi nga xam ne gëm na ñépp ba mu des Isa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nasaara yi nga xam ne gëmuñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee na ñi bëgg a jàppe loolu aw yoon ñooña ñépp ay yéefar lañ loolu alquran la ulaika humul kaafiruuna xaqa ñi nga xam ne nag dañoo gëm yàlla gëm ay yonanteem te duñu teqale diggante yonente sàngam ak yonente sàngam nga xam ne ñépp lañ maase gëmandoo ñooña borom bi nee na maa ngi leen di dencal ak pay goo xam ne gu rëy la ñaareel bi mooy jullit ñi dañoo dëppoo ñi doon ay woroomi xam-xam ci ñoom te jàng xam li sunu boroom yàlla subhaanahu wa taala jàngale ci ne yonente yi yàlla da leen a musal amul benn yonente boo xam ne mën naa juum ci li ko yàlla sa borom yónni ak lu mu fi mën a am nag diir ba lu mu yàgg-yàgg-yàgg ak naax wala jànnaxe du ko masa laal cim xelam ba tax muy wax naan yàlla wax nangam te yàlla waxut loola yonente yàlla da leen a musal ci bataaxel yi nga xam ne moom la ñu yor jëme ko ci jaam ñi bu dee lu ñuy wax lu jub lay doon bu dee lu ñuy jëf lu jub lay doon bu dee lu ñuy jëf ci seen kanam itam ñu di ko bàyyi muy jàll itam lu jub lay doon bàkkaar yu mag yi yàlla da leen caa musal benn yonente buy def bàkkaar bu mag amul loolu dañ caa dëppoo njuumte loo xam ne nag àggul ci bàkkaar bu mag bu ci ab yonante tàbbee itam yàlla du ko ca bàyyi faw dana jàngale ci alxuraan luy wane ne tuub na bàkkaar boobee ba yàlla sa borom jéggal ko ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la yàlla yónni ci nun borom bi bi muy wax ci mbiram dane maa ngi waat ci biddiw yi suñu demee bay faq ci ne seen àndandoo bi sankuwul seen àndandoo bi itam béwul lépp lu muy wax bàyyikowul ci bakkanam waaye lu ko yàlla waxyu la wan najmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyu yuuxa allamahu shadidul quwa amma téere yi nga xam ne ay israiliyaat dañ caa nekk loo xam ne ña ngi ko jële ci banu israila ñu koy nettali ci yonente yi loo ca xam ne sunu alquran jii nuy jàng dëppoo na ak nettali boobee des na ko jël waaye loo ca xam ne day wane ne yonente sàngam mas naa def lu dàqonte ak mbañum rus loola kenn du ko jël ñetteel bi mooy dañoo war a gëm ne yonente yi yàlla mi leen tànn moo ëpp ñépp xam-xam bal moom dong sax moo am xam-xam ndax xam-xam foo ko dégg rek fu ko yàlla def la yàlla moo xamle waaye bu yàlla xamle wutoon kenn du xam bi yàlla xamle ba àggal itam daa wax ne li ma xamle lépp buñ ko gam-gam leeg li ma xam lu tuuti la wa ma utitum min al ilmi illa qalila yàlla moom moo wax ci alquran ne man day maay tànn ci malaaka yi ay ndaw ku mel ne jibril muy dox sama digganteeg yonante yi may tànn ku mel ne malakul mawti mu di ma faatal koo xam ne ab digam daa jot maay tànn ku mel ne israfil maay tànn ku mel ne mikail allahu yastafi min almalaikati rusula waaye dacaa tegoo min annaas nit ñi itam yàllaay tànn kum bëgg a def ab yonent yàllaa koy tànn yaakaar naa jaam bu ràññee yaakaar naa jaam bu xàmmee sax bu tànnee naam mën naa bañ a mate nam war a mate waaye ak mat dana ca am bu dee jaam bu ràññee la waxuma la ak sunu borom subhanahu wa taala yàlla nee na li ma bind maay xool lu ma ca soob ma tànn ko may ko lu ma soob wala ma def ko nu ma soob wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar borom bi subhaanahu wa taala dafa tànn yonente yi ñu gën ci bindeefi yàlla yi mu doxale leen digganteem ak moom moo tax doomu doomu aadama bu ëllëgee yowmal qiyaam du mën a am aw lay gannaaw boo xamee ne yonente yi ñëw nañ ba àggal alxuraan dane rusulan mubashirina wa mundirin li allaa yakuna linnaasi ala allahi xujjatum baada rusul ay ndaw laa tànn yoo xam ne bégle ak xuppee leen tax a jóg waaye damaa bëgg kenn bañ a am aw lay gannaaw boo xam ne yonente yi dem nañ ba àggal amul kenn koo xam ne la nga wax daa doon aw lay ci kenn xanaa mu doon ab yonent ab yonent rek mooy koo xam ne lu mu wax des koo war a jël téeméer ci téeméer wari su caa bàyyi dara lees ca bàyyi lu nekk suñu borom yàlla dana diggaale ko ko bàyyi lu may muy koo xam ne bàyyi gam ko bàyyi ñàkk xam la yonente yi dañ leen a war a bëgg dañ leen a war a wekk dañ leen a war a wormaal dañ leen a war a tagg waaye itam waruñoo xaabaabal ci seen mbir ba leen di jox daraja joo xam ne amuñu ko ndax ñoom ay jaami suñu boroom lañ yonente bi ci gën ci ñoom muy sallallahu alayhi wa sallam yow jullit bi saa yooy taaya da ngay seedeloo yàlla ne ko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maa ngi seede yow yàlla ne muhammad mii sab jaam la waaye sa ndaw la alquran moo wax ne jaaduwul ci menn mindéef man yàlla ma jox ko ñett yi nga xam ne ku ma ko jox ku nekk yaa féete kaw ñépp muy alkitaaba muy ab téere boo xam ne waxi yàlla la nga di ko wax jaam ñi wala muy alxukma ma jox la pouvoir ngay àtte jaam ñi wala ma jox la ak nubuwa amul menn mindéef moo xam ne danaa la jox loolu ba àggal nga sañ a wax nit ñi naan leen kunu ibadan li min dunillah doon leen saay jaam tabaay yàlla donte yooyu ñu la jox yu rëy rëy la yu kawee kawe la yoo xam ne jaam bu ko jox jox nañ ko lu rëy rëy waaye du jaadu ci yow nga naan kunu ibaada li min dunillah mel na da nga ne yàlla waaw ki nga jox alkitaaba jox ko alxukuma jox ko annubuwa bu fekkee sëñ ta wax jaam ñi kunu ibaada li min dunillah lu mu sañ a wax borom bi ne walakin kunu rabbaniyin la mu war a wax jaam ñi kay mooy kunu rabbaniyin na ngeen fexe ba seen lépp ngeen jëmee ko ci sunu borom subhanahu wa taala jaare ko nag ci ñaar di jàngal nit ñi téere bi waaye itam di jàng bi ma kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bi ma kuntum tadrusuun moo tax jaami yàlla yi ku leen bëgg a def ñuy ay rabbaani yoon faaw da nga leen di jàngal li yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale wax yàllaa ko fi bàyyi woon moo tax bi al yawma akmaltu lakum dina ko wàccee tegaatu ci ay fan daa wuji borom bi subhaanahu wa taala borom bi tekki ne ñoom yonente yooyu day duñu leen digal mukk mukk wala du ñu leen digal yéen jaami yàlla yi mukk ngeen di jël yonente yooyu wala malaaka yi di leen def ay arbaab bàyyi yàlla ndax loola bu amoon day mel ne ñoom dañ leen di digal ak kéefar te fekk booba ay jullit ngeen woon wala ya'murukum an tattaxidul malaikata wan nabiyina arbaaba a ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne ab yonente ku ko ŋàññi mbaa nga tànc ko mbaa nga tuutal ko mbaa nga indi ci moom genn manki mbaa nga gaaral ko ci sa biir wax ab yéefar nga loolu boroom xam-xami lislaam yépp juboo nañ ci ñëw na ci alxuraanul karim keroog ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di dem ci xeex bi mujj a xeex muy Tabuk ay naafeq yoo xam ne ña nga ci biir jullit ña di tàncaale jullit ñi di wax naan muhammad ak ay saxaabaam day ku leen gën a rëy ay biir amut waaye ku leen gën a ragal amut yàlla wax yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ñooñ a wax daan ne ko waaye nag boo leen laajoon lan moo tax ngeen di wax lii ngeen di wax dañ naan la dañ doon caaxaan dañ doon fo wala in saaltahum la yaqulunna innama kunna naxuudu wa nalaab borom bi ne ko nee leen su ngeen dee fo xanaa ngeen teggi yàlla su ngeen dee fo xanaa ngeen teggi ab yonenteem su ngeen dee fo xanaa ngeen teggi ay laayaam qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun bu leen wut ngànt laa taatadiru wenn lay desewu leen ko qad kafartum baada imanikum te ñooña booba saxaaba yi lañ doon tànc ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax muhammad ibnu suxunoon mi nga xam ne almaliki ci ngiru malik la nekk day wax ne woroom xam-xam yépp juboo nañ ci ne ku mànkil ab yonent mbaa nga ŋàññi ab yonente ab yéefar nga alqaadi iyaad almaliki nee na woroom xam-xam yépp juboo nañ ci jàppe ab yéefar koo xam ne daa wayefal wala mu tuutal ab yonent wala mu xeeb ko mbaa sax mu reyub yonent mbokki jullit yi jàpp naa ne sunu jamono jii ñu nekk ak sunu réew mii nu nekk nga xam ne boo ko gam-gamlee ak yeneen réew yi da nga yëg ne du réew mu rëy lool boo gam-gamlee population bi ak yeneen réew yi am na sax population yoo xam ne si mën naa ñaarte ñaarte waat sunu réew mii nu nekk waaye rek léeg-léeg nga dégg loo xam ne rëy ga muy rëy maanaam day jéggi dayoo kenn werantewul ne réew mi ñu baax jaar nañ fi ñoo xam ne liggéeyal nañ yàlla ñooñee nga xam ne ñu baax lañ doon liggéeyal yàlla ña ngi ko doon liggéeyale ci njàngaleem sunu borom mi nga xam ne moo jaar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooña koo xam ne tey jii yëkkatiwoo nga genn kàddu goo xam ne gu ñagas la mbaa gu ñaaw la jëmee ko ci ñoom jàpp naa ne doo fanaan sa kër jàpp naa ne itam kenn mënta lijjanti ba duñ la mën a sàkkal pexe bu dee ne loola noona la demee kon yonente yi nga xam ne yàlla leen yónni kon nu muy demee loolu moo tax doon na jaadu ci xolub ki nga xam ne daa gëm suñu borom subhanahu wa taala tey far li jàng alquran muy bàyyi xel bu baax fi yàlla teg yonente yi ba nga xam ne bu amee genn kàddu goo xam ne daa jëm ci benn yonent wala beneen yonent muy ñaar mbaa ñett ba ñeent mu xam ne loola day lu rëy la loo xam ne lu ñu war a lu ñuy wax dénoncé la waaye lu ñu war a ñaawlu la ci ñëpp nag rawat ne ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci wàllu diine kenn waru leen a woon a jiitu ci ñaawlu loolu yi nga xam ne mi ngi tasaaroo ci réseaux sociaux yi yonent yàlla bu ñuy wax daawuda yonent yàlla bu ñuy wax suleymaan nit mën a jàkkaarloog mbooloo mu dul jeex ñépp di ko dégg mu wax loo xam ne man ñi muuma caa jaar sallaahu ñi muuma caa jaar yàlla xam na ko ci ñaaw gu mu ñaaw loo xam ne ku ko waxoon ci bàyyub kenn ci nun yaakaar naa ne loo tële tële tële tële da nga am loo feeñal mbokki jullit yi ñaari yonent yooyu laay wax alquranul karim taxawaay yim am ci ñoom jëlal ma ku ñu wax daawuda yàlla nee na daawuda man nga ne laa ko joxoon wa laqad aataynaa daawuda minna fadla yàlla nee na daawuda jox naa ko nga ne loo xam ne ci man la bàyyi ko borom bi subhanahu wa taala tegg daawuda ci njàmbaaram ne doon na xeex ak ku ñu wax jaaluuta rey ko wa qatala daawudu jaaluuta borom bi nee na ma jox ko ak nguur jox ko xikma waaye jox ko itam li nga xam ne mooy xam-xam la ma ca soob wa aataahu llahu almulka wal xikma wal xuk wal xikma wa allamahu mimma yasha yàlla doon na wax daawuda ne ko atteel jaam ñi ci dëgg te bul topp mukk sa banneex yaa daawudu inna jaalnaaka xalifa fil ard waaw yàlla naka lay jëlee daawuda di ko def ab xalifa ci kaw suuf xel di nangu daawuda di mooy borom bi subhanahu wa taala nan la nan la ñuy jàngee ci alxuraan yàlla di wax daawuda woo ko ci turam ne ko yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ard man maa la def ngay xalifa ci suuf wala tattabi lhawa fa yudillaka an sabilillah yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ard faxkum bayna annaas bil xaq atteel nit ñi ci dëgg te bul topp sa bànneex loola ñu ngi koy jàng ci alxuraan yàlla ne nag nguuram nga maa ko dëgëral maa ko jox alxikma maa ko jox itam lu mën a teqale diggante jaam ñi wa shaddadnaa mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasla alxitaab yàlla tagg daawuda ne joxoon naa ko kàttanu biir kàttan goo xam ne da cay mën a taxawee ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ne ñu bëree bëri ci jaam ñi amuñu ko borom bi nee na tuddal ma sama jaam ba noonu la ko waxee ci alquran suratu saat dane wadkur abdana daawuda dal aydi tuddal ma sama jaam ba nga xam ne ku amoon kàttanu biir la ci wàllu jaamu yàlla innahu awaab ku mënoon a dellu ci yàlla la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi jaamu yàlla amee ci jamonoom moom di ko jàngale doon na wax ne jaamu yàlla day baax na lool waaye julli gi gën ci guddi mooy ga daa wër daan julli koor baax na lool koor yi ngàtt nga waaye koor gi gën mooy koor ga daa wër daan woor daa wër daan taxaw daan nel daan nelaw jenn wàllu guddi gi boo jëlee guddi gi nga def ko ñetti xaaj benn sulus ba mu taxaw ko waaye itam nelaw beneen sulus ba ca des yonent yàlla Muhammad ne kuy taxaw guddi lii moo gën ci taxaw guddi daan ne woor itam ga ca gën mooy que daa wër daan woor nekkul ne mooy ngay woor di dappatu dem rek waaye boo mënta ñàkk woor ngay woor bis di dog bis loolu hadis la boo xam ne muttafaqun alayhi borom bi ci alxuraan mu jàngal nu kàddu gu neex gum joxoon yonent yàlla daawuda ba mu bu masaan di jàng zaboor muy téere bi ko yàlla jox wala muy sabbal yàlla yàlla da koo tàggataloon boole montagne yi ko wër yépp buy naan subhanallah montagne yi dañ koy aw borom bi nee na saa bu nee subhanallah montagne yépp ay àndandoo ne subhanallah loolu alxuraan la ñu ngi koy jàng wa tayra mahshura kullu lahu awaab wa shadadna mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasla alxitaab inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashi wal ishraq suba ak ngoon saa yu sabbal yàlla montagne yi ñi ngi ànd ak moom di sabbal yàlla naka la yàlla yi defe ab yonente ci daraja mu toll foofu ba àggal wal bi doomu aadama jàkkaarloo ak ay doomi aadama di wax ci moom ay njuumte mbokki jullit yi su borom yàlla nee na daawuda weñ gu ñuul dama ko ko nooyaloon wutal ko lu ñuy wax alxitru muy sawndeel ko godron mu ciy liggéey ay mbubbi koŋ yoo xam ne dañ ko daan deme ca xare ya ma jàngal ko naka la koy liggéeyee wa allamnaahu sanaata labusin lakum yàlla neen maa ko jàngaloon naka lay liggéeyee ay mbubbi koŋ ani amal saabiraat mbubbi koŋ ma xam du yëmbax wa qadri fi sard du fatt ba nga xam ne dalay gaañeel borom bi ne i'malu ala daawuda shukra wa qalilu min ibadiya shakur borom bi ci alxuraan nee na joxoon naa ko nguur goo xam ne kenn du ko amaat ginnaaw bi nguurug Suleymaan ak nguurug Daawuda yaatu na yaatu goo xam ne kenn du ko amaat moom noonu la ko ñaane woon yàlla wahab li mulkan laa yambagi li ahadi min baadi yontu yàlla Suleymaan borom bi subhaanahu wa taala nee na benn bis dañ koo gaaral ay fas fas yoo xam ne ña nga cuus seen tànk dañoo taxawee ñett tànk yëkkati benn tànk ba mu leen di xool ba far takkusaan raw ko julik takkusaan raw ko loolu alxuraan ko jàngale nee na ba ko julik takkusaan rawee rëcc gum rëcc loola ak metti gum metti ci moom tax na mu daan ne indil leen ma fas yi bañ indee fas ya da leen a cor ñoom ñépp ñépp fas yépp la cor rey leen ngir maanaam dox giñ dox dox giñ dox digganteem ak julik takkusaan googi borom bi moo jàngale ci alxuraan ne moo wax ci alxuraanul karim ne id urida alayhi bil ashi saafinaatu ljiyaad fa qaala inni ahbabtu xubba alxayri an dikri rabbi xatta tawaarat bilxijaab rudduha alay delloo si leen ma fas yi ba ñëwee mu tàmbali moom moo leen doon coral boppam ca seen yeel ya ak seen doq ya la doon cor fa tafiqa masxam bi suuqi wal anaaq borom bi nee na bam rayee yooyee te yàlla rek tax amatut lu mu war waaye léegi ngelaw li laa ko tàggatal fu mu jëmati ngelaw laa ko fa yóbbu fa saxarnaa lahu riixa tajri bi amrihi ruxaan xaysu asaab maanaam am xëy doxu weer ngelaw li da ko yóbbu ci doxu weer guduwuhaa shahrun wa rawaahuhaa shahr kooku la suñu borom subhaanahu wa taala tagge noonu ci alxuraanul karim ab jaam jàkkaarloog ay moroomi jaamam di wax ci moom loo xam ne wuute nag lii alxuraanul karim di jàngale mbokk yi Suleymaan yàlla joxoon na ko nguur goo xam ne rëy gim rëy jéggi na dayoo yàlla da koo tàggataloon saytaane yi tàggatal ko jinne yi ñu di ko liggéeyal suba ngoon di ko dugal ci biir géej gi wa mina shayaatini man yaguusuuna lahu wa yaamaluuna amalan duuna dalik am ci ñoo xam ne dañ koy liggéeyal ay mahaarib wa tamaasila wa jifaanin kal jawaab di ko liggéeyal ay ay cin yoo xam ne bu ñu ko sampee sax mënoo ko mënoo ko puus mu di ci berndeel ay jaam mbokki jullit yi yonente yàlla muhammad benn bis ci hadis boo xam ne bu wér péng la doon na julli iblis ci boppam ñëw di jàmmaarloo ak moom bëgg ko yàqal julli gi yonente yàlla muhammad kàttan ko ko yàlla jox tax mu téye iblis ne ko nuus dem ba nar koo yeew ci jàkka ji fàttaliku li suleymaan waxoon ne wahab li mulkan laa yambagi li ahadi min baadi mu ne ko yàlla bàyyi ko mu dem moom moo nettali loolu yonent yàlla moo moo wax loolu moo xëy ne iblis de doon na ma yàqal saa julli may yeew ma tée ko ciix ba nar koo yeew ci jàkka ji waaye su ma ko yeewoon ci jàkka ji day mel ne man dama di yonante di buur te man ab yonante rek laa doon buur ndax Suleymaan lam ñaanoon wahab lii mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi loolaa tax ma bàyyi ko mu dem jinne yooyee nga xam ne ñoo doon liggéeyal Suleymaan yàlla nee na ku ci mooy ndigalam dama lay dugal sawara wa man yazig minhum an amrina nudiqu min adabi sair loolu alxuraan jàngale ci moom moom picc yi buñ daan wax mu xam li ñuy wax met menn picc ña naaw lu daan naaw di wax dana xam la ngay wax xorondoom bi buñ dee wax mu xam la ñuy wax moo tax mu wax ko bàkku ca kanam jaam ña delloo ko ca yàlla ne ah yaa ayuha naas ca dëgg-dëgg yéen nit ñi ollim naa man tax tayri man de yàlla xamal na ma ñanaaw yi li ñuy wax inna hada la huwa alfadlu almubin nga ne lu rëy la ma yàlla saa borom defal suleymaan moom mii doon na dox ba yàgg mu dugg ci aw xur woo xam ne ay xorondoom ñoo fa nekk wenn xorondoom ca biir xorondoom ya daan ne yéen xorondoom yi dugg leen ci seen kër yi suleymaan a ngi ñëw ak gàngooram laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuduhum laa yashurun lu ko may ñu jaar ci seen kaw nappaaji leen tunuñ ko yëg suleymaan daal di muuñ ndax xam na li xorondoom yi wax fa tabassama daahika min qawliha daan ne rabbi ca dëgg-dëgg awzi'ni yow day maa ngi lay ñaan nga yénkeewal ma ma sant xéewal gi nga ma defal an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa adxilni bi rahmatika fi ibadika salihin mbokki jullit yi Suleymaan yàlla setal na ko ci loo xam ne yahudi dañ ko ko doon tuumaal lii ñuy wax ak njibar tey yahudi dañ ko doon tuumaal Suleymaan Suleymaan mufassiruun yi nee ñu dafa jekkoon jinne yi nga xam ne dañ daan jàngale ay njibar lañ yoroon lépp mu jël ko suul ko ci ron gàngu naayam ba mu génne àddina saytaane yi ñëw génne loola jàngal ko doomu aadama yi borom bi nee na wattabau maa tatlu shayatina ala mulki suleyman borom bi nee na suleyman weddi wudde wa maa kafaru suleyman ñan ñoo weddi walakinna shayatina kafaru seytaane ya nga xam ne ñoo dundoon ak moom ñoo weddi weddi loo doomi aadama yi yuallimuuna annaasa sihr mbokki jullit yi alquranul karim nañ ciy delluwaat di ko jàng suñ koy delluwaat di ko jàng di ko setantal maanaa day tax day tax bu ñu déggee lépp lu juyoo ak moom dañ ko daal di xam fa saas téereb sunu borom yàlla bi lépp ci lépp lu ci yàlla wax ak ku ci yàlla tagg loola lu wér lu ci yàlla wax lu wér la ku ci yàlla tagg ku baax la yàlla du tagg ku baaxut yàlla du tànn ku baaxut déedéet yàlla ku muy tànn ku nekk allahu aalamu xaytu yajalu risalata yàlla xam na risalaam fan la koy def moo tànnoon daawuda moo tànnoon suleymaan moo tànnoon yaquba ak ismail ak isxaqa ñooñu ñëpp moo leen tànn yónni leen ci jaam yi yal na yàlla fayal nu leen ñoom yonent yooyu yal na yàlla fayal nu leen ñoom yonent yooyu yal na nu yàlla sama borom dimbalee yonent yooyu naam baax nañ naam waaye ka gën ci ñoom muy sallallahu alayhi wa sallam yal na nu yàlla dimbalee nu koy topp ci wax ak jëf wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin